Xarit Toumé ànd ak Mame Diarra. ok ah, yow yow sa nguur laa garaawul de. garaawul de. yàgg moom Mame Balla ndax caatu yaraax moo ëpp compétition andil booy bi xeex juum loo ko daw bëreeg moom. caatu yaraax lan mooy avantage am. caatu yaraax faaw mu xëcc Mame Balla bëreloo ko combat combat bu yàgg. bañ a bëre ci simili njëkk yi. vie de Bamballa ba conflit bi wàññeeku mu mu mu fexe bu ñu jàppantee muy jéem a def xeex bu sew bi. mais Ndiaga ki nga ko jeexalee bëre. mais ki nga xamante ne mooy Bamballa état man état bu ma gis dafa mel ni baax na. non indi na état bi boo xoolee indi na ko boo xoolee bëri na lu mu doon liggéey salle musculation boo xoolee ci état bi xamuñu nag ndax cardio bi. toll na noonu wala déet maanaam xol bi est-ce que bu yàggee dina ko mën a gérer. dëgg loolu li ci kanam daal rawati bët. l'expérience face à la euh, face à la <laughs> waaw l' expérience face à la jeunesse Mame Balla expérience ci wàllu lamb Caatu Yaraax xale la liggéey ba fekk si ki nga xamante ni mooy Mame Balla waaye Caatu Yaraax tamit nekkatul gan ci wàllu lamb saa su la sama bët fi ma ko teg mooy bërëg ñi si kaw booy bërëg ñi si kaw nag daam fooy jaar fan la war a jaar est-ce que jaar fii tey est-ce que naa ñëw rek dal ci kaw ki xamante ne mooy Mame Balla moom déedéet bu ma ko doon diggal dama naan ko yóbbul combat moo noonu moo ngay présenté wu moom Thiatou Yarakh ndeysaan te boo la xool lim naa dafa mel ni combat bii ndeysaan est-ce xeex kenn taxul mystique seen mystique dañ koo yemalee ndeysaan te boo la nga xam ne ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci état état bu doy mooy dina nekk combat bu saf sap non signature am ñoom ñaar ñëpp parce ñaar ñu wow lañ lañ ñaar ñoo xamante ni à chaque fois buñ ci géew dañuy jëmbat li nga xamante ne mooy fulla fayda ki nga xamante ne mooy caatu yaraax bu ñëwee bëree da koy teg si yoon waaye rawatina rawatina ki nga xamante ne mooy Mame Balla bëri na fi lamb ju ne ndeysaan Mame Balla ak nga xamante ni mooy caatu yaraax boobu combat moo des. daa mel ni ñu ngi leen di présenté bu ko defee Bombardier ak mooy Tapha Tine. boobay daj dëgg bi. ndeysaan libéré ñi nga xamante ne ñooy amateurs yi bilaay ak supporters yi ak reporters yi ndeysaan ak caméraman yi ndeysaan daal libéré seen i mbokk sax ndeysaan ndax seen duñ si xasee ba am combat seen mbokk yi ndeysaan waa Mbour toogatuñu ndeysaan waa Réfane Bawol toogatuñu bilaay ñenn ñee ngi tiit ñii naan ndax dinañ reer wala duñu reer ndeysaan ndeysaan ci kanam tuddee ci xam dara ndeysaan ñu jëm ci combat wu doy waa diggante maam Balla waaye dafa romb spécial di dem ndeysaan nee naa la promoteur bi daa xër rek lii rek moo tax na grand combat comme promoteur bi kontaan na man la ñëpp a kontaan ñun ñuy ñun ñuy rapport sax kontaan na promoteur bi bég na ndeysaan ndeysaan arbitre bi moo ngi wax ak ñoom ñaar ñëpp ndeysaan waaye ñoo ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk si diaspora bi waaye di nuyu tamit également ñi nga xamante ni ñoom la caab féete ginnaaw di leen ñaanal liberté waaye di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci lal opito yi dina ñaanal li nga xamante ne mooy gudd fan ak wérle gudd ah, boo wéree rek di nga mën a dox li nga xamante ne mooy say activité amin waaw yàlla na ko yàlla may ñëpp ci barki yonente bi di ñaanal waay daalu yi ndeysaan yàlla yërëm leen ndeysaan jaga arbitre baa ngi waaj a sifflé si diggante Mame ak ki nga xamante ni mooy Thiatou Yarakh ndeysaan combat bam enjeu la combat bam tension la ci ñoom ñaar. combat bu spécial. combat spécial la mun naa ko tuddee combat euh, grand combat. combat bu saf saabu. ndax tey ci bu la ñoom ñaar gis nga ku nekk yaa ngi taxaw déglu sa morom. ndeysaan si diggante Mame Balla ak Thiatou Yarakh. Mame Balla moo wan ginnaaw Thiatou Yarakh lan jàkkaar lool mbokk yi. ndeysaan ci mën di dégg combat la boo xamante ni bu sa classe ba. ma ne la examen la ci ki nga xamante ni mooy Thiatou Yarakh. te bu ko jàllee dafa war a def bac bu defee bac ci lay a dem ci kaw am na solo Sariya. ndeysaan ña naa la ku sa yaay di jàmbaar doo daw xare loolu loolu la olof wax ndeysaan ñoom ñaari mbëri ñoom ñëpp ndeysaan mais ba tekki tekkaaral na kenn ay jàmbaar lañ kenn ku ne ngay liir ndeysaan ñoo koy benn bennal ñoo koy benn di ko kotti kotti di koy yàlla yàlla déggoo li ma la wax nee naa la combat bi ñoom ñaa kenn taxu ci gis nga leen bu baax ndeysaan kon tey la a bëri lu doy waar Mame Mame Balla woon moo leen woon ginnaaw ki nga xamante ne mooy Caatu Yaraax moom ngeen jàkkaarlool noonu. ñoo ngay demee wet. ñoo ngay demee wet. nee naa la saako yi fekkiwul kenn ku dem yaa ko fa fekk. ñoom ñaari mbër yi ku si nekk yaa ngi déglu sa ko tiki taka. nee naa la combat bi combat tactique la. ndeysaan ne jaka dafa mel ni ba tey dara xewagul. ba tey dara xewagul dara mënagul xew. ndeysaan ndax ñoom ñaar il faut kenn ku ci nekk bàyyi xel sa morom xool sa adversaire lan lay indi. ñëwul Caatu Yaraax te caatu yaraax na sóor tànk bi mu teg kii Mame Balla na sóor tànk bi mu teg tege na caatu yaraax. caatu yaraax Balla jël na ko Balla caatu yaraax. laa ilaaha illallah lan la kan moo daan kan moo daan. est bi. na caatu yaraax. Mame Balla daan na ko. Mame Balla daan na ko. laa ilaaha illallah. Mame Balla daan na caatu yaraax. dafa dina li nga xamante ne mooy mu ne ma.